les discours des opposants étaient fort agressifs. Sunu démocratie ku ko attaqué jàkkaarloo ak ñun. Assisté par une marée humaine. Mais dans cette soirée, l'on retient que cette séquence de 10 secondes, une poignée de main, Ousmane Sonko et Aminata Touré. Seulement sept mois plus tôt, à la préparation des élections législatives, tous les coups étaient permis. ñun ñëpp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloo ko Macky ak nguuram. réew mi nag. moom war naa xam ne mënu koo taal tey mënu koo taal guddi mënu koo taal bëccëg. parfois il y a la dérision. suñu tataa mimi borom xam-xam ju bëri ji. élection bu mu jublu rek moom day xalangu ba mbëq suuf lay def. amul kenn ku mu mën a tiital wala ku mu mën a xoqatal amul. qui frôle le duel. tataa mimi doo campagne. Sénégal Ousmane Sonko dana politique ba jeexal bàyyi ko fi. ce duel entre ces deux personnalités exacerbé par la campagne électorale. Ousmane Sonko provoque la tête de liste de la coalition au pouvoir. Elle rétorque aussitôt. boobu Sonko publiquement toog débat qu'il condamne le MFDC. Aminata Touré écartée du poste de la présidence de l'Assemblée nationale sape ici les plans de la mouvance présidentielle en pleine session. Président Macky Sall février 2024 ci lay Elle est finalement déchue de son siège. La source n'est personne d'autre que le président Macky Désormais évincé, il est moins critique contre l'opposant un peu évasif ici lorsqu'on lui pose la question sur son éventuel rapprochement avec le leader de PASTEF à la télévision. dégg nañ le fi ak euh, rencontre bu ñu wax sax Ousmane Sonko. mais Sénégal lañ nekk ñun ñëpp ay sénégalais Finalement, les retrouvailles des deux personnalités de la scène politique, que tout séparait avant et que tout réunit aujourd'hui, peut-être à leur appartenance politique gaïste, on le dit jamais, bien gauche.